très chers amis internautes de la Sen Série TV maa ngi leen di nuyu di leen remercier bu baax baax li ngeen di àndee saa ak sunu ay programme tey seen rubrique décortique dafa ñëwaat ci série Babel épisode 32 dañu koy door ak Père Ndiouga Père Ndiouga nag li xew këram la mënta comprendre parce que moom jàppoon na ni booloo mooy doole te bu jëlee njabootam yépp daal di leen bool def ci benn kër day tax rek jàmm bi yokku ñu gën a juboo gën a nekk benn waaye gis na ni tey contraire bi moom moo am mu mel ni kon parfois li nit ñi di bañ ci kër gu mag loolu moo farafee euh, du yomb benn yoon xol yëpp daal di booloo nekk euh, benn ndax ku nekk da ngay ñëw indiwaale sa jikko te su boobaa yaakaar naa euh, dëkkin bi du neex ba tax na kon mu jàpp ni jot na ku nekk daal di beru waaye Sadikh moom mi nga xam ni jamono ji gis nañu ni dafa xippi ay bëtam daal di gis jàpp na ni faa dellu si rek moo mën a tàppewaat xol yi moo mën a rek daal di dajalewaat famille bi ñu nekkaat benn ba tax na mu bëgg xalil def lépp loo xam ni mën na ko ngir faa dellu si si kër gi ndax moom sa Sadikh jàpp na ni loolu rek mooy solution bi di Sadikh Sadikh nag gis nañu ni moom euh, léegi euh, mën naa ni dafa gën a mature donte nag a a ba mu nekkee ak joojo ku ne xam na ni presque daawul xalaat lu neex joojo rek la daan def mel ne ku gumba woon tëx lu loolu nag mbëggeel moom moo koy def waaye tey euh, xeex na ak xolam daal di jiital xelam ndax yaakaar naa boo ko toppee doo jug ci ay erreur ndax émotion ngay demee te kuy dem ci émotion du di nga yàgg rek di rëccu ci say décision yi nga xam ni da nga koy jël waaye boo demee ak sa da ngay xalaat xam yoon bi nga xam ni moom a jaar sonn loolu nag tax na moom mi nga xam ni moo di euh, Sadikh commencé na sax di bien comporté wu ak ki nga xam ni moo di Awa Cheikh ndax yaakaar naa ni euh, tey wax na ak moom sans yuuxu ko Awa Cheikh itam jege na ko ko kersa ndax loolu Awa Cheikh mënu ko woon am ci moom euh, mi ngi jéem rek di wax ak Leila ngir mu bàyyi faa mu nekk si jàmm ndax jàpp na ni instant yi ñoom ñaar ku def nga sa morom lu metti kon waroon na faa yem waaye Leila xalaatu ko ndax moom yaakaar na ni warul jël ndaare te it warul nekk ki nga xam ni rek moom mooy mujjee defet bi si noonee nag mooma Khady Thiam mel na ni dafa jaxasoo jamono ji ndax ultimatum bi nga xam ni moom la ko Père Ndiouga jox te mooy soit mu sëy soit mu dem village mu mel ni nag kon moom ay ambition wam la bëgg nag daal di euh, taxawal waaye nag ci góor ñi la ko nar a wékk muy loo xam ni nag su ma yowul mun na koo dugal ci musiba ndax yaakaar naa ni jigéen euh, boo bëggee dara bëgg ko wékku ci góor yàlla mun na la boole góor yoo xam ni euh, luñ la defal dara ci noonu lépp lu la defal rek li leen ko fay te amaana ni nga koy fayee du la neex ñu ko gënal foofu yaayam ndax ni muy waxee ak yaayam ak ni muy comporté woo ak moom bi ko bëgg ndax lu lay laa bëgg rek moom même bu nekkee ni que moom xam na ni euh, lii du mu mel ni moom lay laa jàpp na ni bi mu nekkee xale yaayam da koo daal di euh, abandonné da koo rek daal di maye jox ki nga xam ni moo di wujjam mu jàpp ni kon yaayam am mosul am ko loolu tax na nag moom lay laa mu mel ni euh, ku ñàkk éducation yaakaar naa parfois buñ la dénk dénkaane eh, ñi nga xam ne ñoom lañ la dénk ñuy bañ eh, ku leen gaaral wala ku leen wax eh, ko jurul moo ba far sax dañ koy fàttee yar ba ko yaakaar naa ni la manque d'éducation de base rek moo ko topp ndax koo yàgg di nabb nabee yàgg koo rek daal di teg foo xam ni naa ni waruñ ko fa woon teg ñu jàll ci Awa Cheikh Awa Cheikh nag moom nañu ni xalil ne am rek la bëgg ba tax na mu bëgg mu daal di jëli faa waaye xalil moom jàpp na ni wax na waxati ba sonn faa nangu ko déglu waaye nit yaakaar naa boo ko bëggee rek nekk ak moom danga koy xam te moom Khalil jàpp na ni tey faa lenn li nga xam ni moom la bëgg yàgg koo bëgg mooy crèche bi nga xam ni mi ngi ci boobu ba tey te crèche bi ku ne xam na ni instant yi am na problème moom Khalil bu ko lijjanti woon ba tey problème yooyu daal di réglé wu peut faa dina ko baal ndax defal na ko li nga xam ni gënoon a bëgg ñu jàll ci Leila Leila nag du bàyyi la na ñoo xam ni duñu duñu duñu duñu bañ ba pare di bëgg dañuy bañ rek ñoom loo leen mënti defal itam du mën a du ñu soppi seen euh, liñ bët biñ lay loolu nag tax na tey euh, moom mi nga xam Leila dem ci fi nga xam ni moo di ca crèche ba ngir nag def fa yoo xam ni day tax rek euh, bu bu ñi nga xamee ni ñooy euh, saytu wàllu ko euh, sanitaire bi buñ ñëwee duñ rek accordel fa place boobu noonu mu mel ni kon moom Leila du bàyyi benn yoon waaye heureusement ba Khalil mi ngi fi moom it ngir jàppale fa ba mu am rek fu mu def crèche boobu te du am benn inconvénient mu mel ni kon moom Leila day nekk di def yu bonam te bis buy faa di réussir da koy bett ndax du ko xaar ndax Khalil mi ngi ci suuf di ko lijjantil fa ñu jàll ci moom Omar Omar loolu nag gis nañu ni moom comportement Tidiane da koo neex ni Tidiane mel da ko séduire muy loo xam ne lu am importance la ndax yaakaar naa euh, baax dafa am solo waaye nag nekk xale warulaa tax rek am ngay teg sa tànk mu nii tey moom mi nga xam ne moo di Tidiane comportement bu baax ak doxalin bu baax tax na Omar mi nga xam ne ñoo bokk génération euh, daal di ciy kontaan euh, ba rek daal di bëgg mel ni moom loolu nag yaakaar naa nite moom moo koy def waaye nit itam dafa bokk nga mën a discerner sa problème ak sa liggéey comme bu am nit problème warul tax bu ngeen seqee liggéey liggéey bi ko sabote wala li ci def naka sudul noonu ndax Tidiane gis nañu ni doxaleewul noonu contrairement nag à Laye Pen ndax Laye Pen moom euh, ba tax na euh, liggéey bi sax ni mu waree du ko euh, a a a comprendre na que ni Khady mu ko toppee rek mooy euh, pour mën a atteindre objectif am ndax Laye Pène am na xaalis waaye mel na ni du yomb ndax ku ne xam na ni Laye Pène euh, niñ ko gisee nii nuruwul koo xam ni rek dina bàyyi Khady muy lekk ci moom euh, lu tollu tarafatal ay nit te moom du am ci moom dara jàll ci Sadir Sadir nag dafa ñëw attaqué nijaay Mor ngir nag jot sunguf si nga xam ni moom la ko liggéeyee woon pour nag médecin yi mën koo faj mu mel ni kon moom Sadir jamono ji mere na nijaay Mor mais mere boo xam ni nekkul woon ak Marème Thiam amaana mu ñaaw waaye heureusement ba moom Sadir moom it ku nite la xam na ni mook Marème Thiam li ñu bokk di papa mënuñu koo dindi sànni te euh, oncle Mor nu mu mënti mel nijaay moor euh, mooy rek boroom këru euh, Marème caam yaakaar naa boroom kër mooy kilifa te kon moom cest à day xoolee loolu Marème Thiam ba tax na kon nijaay Mor daal di ci génn aussi facilement waaye bu dul woon loolu maanaam dina ñaaw torop ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni Nabou Guèye moom nag ñëpp a ngi koy reetaan ñëpp nag di ko tuutal ndax togg bi nga xam ni naqari na mu togg ko ba tax kenn lekkul ci noonee nag Bakir wax ak ci mbirum Khady muy génn dafa bari alors que xale sa kër nga war di toog rawatina xale bu jigéen ndax yaakaar naa xale bu jigéen warul rek nekk ci mbedd mi di tambaambaalu waaye comme li ñuy wax rek si diggante yaay ak doom moom euh, mi nga xam ni dina buggee jëlal na xari ci am paar daal di koy rek layal euh, te moom leeru ko sax ndax li mu wax euh, loolu moom mooy dëgg waaye bëggul rek ku wax doomam dara ndax yaay ju ne yaakaar naa noonu ngay mel ak sa doom waaye nag doom waroo koo rek far si yoo xam ni ëllëg mën na koo indil ay difficulté ñu jàll ci lay pen lay pen nag moom boole ko ndax bëgg rek li nga xam ni euh, moom la euh, Khady Thiam nar a def si moom mu koy def moom it mu am li mu bëgg ci moom moo di Tidiane ñëw na à temps daal di koy sauver mu mel ni kon moom Khady ba faawu ndax Tidiane euh, la ko mosa won bëtu mbëggeel la ko mosa won te noonu sax lay doxalee ak ñëpp ndax ku ne xam na ni ku baax la te it nag moom amul problème ak kenn au contraire nag nit ñi ñoom ñoo koy indil ay filtre ñu jeexal ak awa Cheikh nag moom jàppoon nañu rek elle fait des idées digganteem ak Sadikh euh, ba tax na mu jàpp ni Sadikh mën na sax daal di retourner daal di demaat ak ki nga xam ni moo di euh, joojo euh, mu nekk fii moom di ko xaar mu mel ni kon moom aw Cheikh dafa jàpp ni day nax boppam waaye nag mel na ni dafa xamul ndax Sadikh mii ñu gis mel na ni dara ko rek yóbbu ci ki nga xam ni moo di joojo ndax Sadikh ku ko xam-xam ko ci fulla ak fayda te nag niruwul koo xam ni day yàbbi di sixaat kon aw war naa mu nax dalal xelam donte nag du yombee noonu ndax ku ne xam na ni ay nit su ngeen neexoowul woon ba jour ñëw nga bëgg rek daal di lépp petit tappati nga koy defee parce que xol mënta ñëw rek daal di nangu dara kon mbokk internet yi foofu la yem ci épisode 32 série Baabel ma jox leen dig daje fi beneen épisode waaye laata boobu woy leen di abonné ci seen série TV bu leen fàttee bës si cloche notification bi pour ngeen di jot suñu vidéo yi à temps réel jërë ngeen jëf